Ndeye Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk yi déglu da leen ak kan mo jité opposition bi fi ci même réew autolikaay bii di ci Quotidien mi ngi ñuy xamal né lacc googu dé ba légui nak kenn mënu ci indi tontu gi waar ndaxte ginnaaw ba ñu daldi amalé élection présidentielle la gis nak mom moy né Macky Sall ñi nga xamné ne lañ ci tabb mu daldi nekk réew amna ci lu tolloog cinquante huit virgule vingt six pour cent ki ci topp nag Idrissa Seck am 20,51% virgule cinquante et un pour cent Ousmane Sonko daldi di ñettel ñetteel leen am ci lu tolloog quinze virgule soixante sept

wante ba léegi ci biir surikaay bii di Sud Quotidien suñu naataango yi daal dinañ ci seq waxtaan ak ki nga xam ne daal moom mooy docteur Jean Charles Biagui nekk ab jàngalekat euh, ci wàllu science politique ci université Cheikh xam ne euh, moo ko daal di fësal démb nag moom dafa gis ne kii di Idrissa Seck la ñu war a mën a jël def ko euh, mu jiite l'opposition bi di docteur Jean Charles Biagui daal di ne ne daal ne mënuñoo sukkandiku nag ci élection bii nga xam ne nag moom la ñu jógee ngir daal di tabb nag ki nga xam ne de moom mooy jiite l'opposition bi ndaxte nag am na ay force politique yu bëri yoo xam ne nag euh, li nga xam ne nag moom moo jublu ci wàllu élection locale yeeg législative yi te fi mu nekk nii euh, ñu ci ruumanaat di wax daal ne dañu koo a boole enquête yéen kay mi ngi ñuy xamal ne mën na arranger ñi nag ñoom su fekkente ne kii di Macky moom ci élection yi nga xam ne nag moom la mujjee jógee daal dina ci am na ndam mun na profité waale nag ci li ni mel ngir wax ne dañuy amal ay élection législative ak tamit élection locale wante it dañu gis nak ni askanu réewum Sénégal ñom fu mu nekk ni nak mën nga leen na seentu fi de ñu fële feneen loolu tamit mun naa profité nag ci ñi nga xam de ñoom ñoo nekk ci walu l'opposition bi li am ba des dal lépp loo xam dafa jublu nak ci walu tas li di nationale am na ñoo xam ne daal ñoom xalaat nañu nag ne loolu du xalaat bu baax ki nga sax député Théodore Monté, mom sax la mu gis moom mooy ne ñi nga xam ne nag ñoom ñooy fësal kàddu yi ni mel dañoo bëgg a fexeel ki nga xam ne nag moom mooy Moustapha Niass loolu nag moom moo tax ñu bëgg ñu daal di tas tasaan li nga xam ne assemblée nationale ci li nga xam ne nag moom moo jublu ci wàllu gouvernement bi nga xam ne nag ñu ngi euh, ba fa li nga xam ne moom mooy ca Abu Dhabi ngir daal di fay noppaliku wante ba léegi de kenn xamul nag kan mooy euh, génn ci gouvernement bi ka cay jóge wala boo kan moo ciy des

APR jàpp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ci Benno ak tamit mouvement de soutien yi ma ci mom fu mu nek ni dal pression bu metti bu tar lay jankontel ñu dal di wax ak kay bi di Le Soleil nak ci ndox bi nga xam nak ñu nek ci banlieue bu Dakar dañ koy faral di ñaxtu nak ñom lañ ca gis mom moy ne ndox bi dafa xonk kay bi di Le Soleil ne nak ngir fexé nak ba ndox bobu gën sel manam do am lenn la xam dal dañ ko ci gis ci walu lenti lenti am na nag station bo xam dinañu ko dal di tabax fa li nga xam mom moom mooy ca Sébikotane le soleil di ñu xamal ne nag loolu moom su fekkente ko dinañu fexe ba dindi nag bi nga xam ne dañu koy faral di nemmeeku ci ndox ne moom mooy moo ñuy xamal ne am na nag ay takk yoo xam ne nag ñoom mu nekk ni daal dañoo daal di fësal seen mer ndaxte dafa am nag ay ndàmpaay ñu ñu leen war mu nekk ni daal ci lu toll juróom-ñeenti weer nag joxuñu leen ñoom ñoo daal fësal seen kàddu sax daal di naqarlu li ni mel autorité bii di laas di ñu xamal tamit ne lu weesu loolu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy policiers yi tamit am na leneen lu ñuy ñaxtu maanaam daal ñoom seen ndàmpaay dañoo gis sax ne fi mu nekk ni nag dañu ko wàññi bu baax a baax lañ leen doon jox sax seen wàllu téléphone dafa jógee ci soixante mille daanu ba ci six mille francs ñu jeexalee ko nag ak faatu bakkenu ab doomu réewum Sénégal fële nga xam ne nag moom mooy ca Angleterre autorité bi di L'Obs mi ngi ñuy xamal ne la Camara moom nag ab étudiante la dañoo faat bakkenam nag foofu nga am Manchester te nag ñi def li ni mel du ñeneen ñu dul ñaari sénégalais fu mu nekk ñi nag ñoom ñaar teg nañu leen loxo police bu réewum Angleterre fas yéene def ab enquête ngir xool ba xam lan moo waral ñu def ñaawteef gi ni mel lii moo nekkoon mbokk jullikat yi ñu leen di ñaanaan jaxtu du bës ak jaww